ngir jot suñu ay vidéo da di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international mu nekk député ca assemblée nationale nekk itam responsable moral A3J Mously Diakhaté di ñaawlu kàddu yi nga xamante ne naataangoom bi di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati na ko moom nag la mu koy ñaax mooy ngir mu daal di jéggalu ci ba muy teel rafetul te rafetlu wu ko te benn nit ku yu du ko rafetlu kon Cheikh Abdou juum na bu baax a baax a baax bu jéggaloo mën nañ ko jéggal te loolu ci grandeur la bokk nga xam ni juum nga nga jéggalu ci grandeur la bokk te mu ngi ñaawlu anam yi nga xamante ne noonu la ñuy defee opposition ci biir Sénégal député bi nag mu ngi dellu di ñaax way politique yi ngir ñu daal di bàyyi seen xel ci lépp li nga xamante ne moom mooy ay valeur républicaines. defe naa ni ñoom war nañu defaat école politique formation renforcer leur capacité gëstu il faut politiciens yi ñime gëstu il faut politiciens yi jéem a cultiver te pour nga cultiver il faut nga gëstu te pour nga gëstu foog nga ñeme weetaay waaye yaa ngi ci réseaux sociaux yi gis rek gëm ko loo dégg rek gëm ko ñun dañu am suñu ay valeur suñu ay valeur mooy yiw suñu ay valeur du saaga ku la mag du saaga parce que képp ku ci saaga ku la mag muy góor muy jigéen da la leer ni sa waajur nga saaga ndaw yi nga xamante ne ñooy ëllëgu réew mi Mously Diakhaté comme ni mu leen jabootee dellu di leen ñaax yi may waxal xale yi ni nga ko waxee sama doom yi sama jarbaat nga xam ni tey kër goo dugg di nga fa fekk juróom juróom benn xale benn mag nga fay fekk vraiment fukk faut ñu diglu